ami sportif dal leen ak jaam seen revue d'actualité de ce jeudi 12 août 2021 ñu dooree ko ak football ak super coupe bi doon amal ci diggante Boulaye Dia ak Edouard Mendy dinañu waxtaanee itam Stade Lat Dior de bi nga xam ne nii bu ñu moytuwul nañ ko daal di homologué te du yàgg dara ñu jàll ci basketball waxtaanee tournoi international bi ñuy amal ca Diamniadio laata ñu koy tëjee ak mercato des Lions neskis ñu daal di leen koy faram-fàccee ñu jàll ci football waxtaanee super coupe bi ñu doon amal démb ci diggante Villarreal bu Boulaye Dia ak Chelsea bu Edouard Mendy jàpp leen ne match boobee nga xam ne ni ñaari ndaw sénégalais joué nañ ko jeexee na ci victoire Chelsea ñu daal di ci ràññee passe décisive bu Boulaye Dia ak prestation bu am solo bu Edouard Mendy mi nga xam ne nii dañ ko daal di génnee ginnaaw ba mu desee ay simili ci série penalty yi Thomas Tuchel mi nga xam ne ni moom mooy entraîneur Chelsea bu Edouard Mendy daal dina àddu jëmale ci boobu changement xamal nañu ne lu waral mu génnee Edouard Edouard Mendy Kepa mi nga xam ne ni moom mooy gardien numéro 2 bu Chelsea moo ko gën a aay ci côté penalty Edouard Mendy itam bañ ko laajee xalaatam ci boobu changement daal dina xamal ne nekk na situation boo xam ne nii waajaloon nañ ko seen biir Edouard Mendy yokku si ne lu ëpp solo mooy Chelsea jël ndam li te def na ko ñu desandi ci football waxtaane Stade Lat Dior bu Thiès bi nga xam ne nii bu ñu moytuwul nañ ko daal di te du yàgg dara ginnaaw ba waa boobee xool ndax mën nañ ko homologué ab déet jàpp leen ne bu ñu sukkandikoo ci ay information inspecteur boobee dina nangul ñu daal di homologué stade Lat Dior bu Thiès maanaam nangu na ni boobu leen mën na daal di abrité bépp jongante international jàpp leen ne stade Lat Dior suñ ko homologué ci fan yu ñu jëm Sénégal dina recevoir Togo jëm ci éliminatoire coupe du monde 2022 bi ñu amalee ca Qatar ñu waxtaanee basketball ak tournoi international bi ñu amal ca Diamniadio ndax wàccaayu afro basket 2021 ne suñu gaynde yi nga xam ne nii ñoo nar a représenté Sénégal ci boobu Afrobasket dañoo daal di gagné seen ñaareelu match de préparation contre Rwanda 60 à 87 la match bi jeexee mu nekk ñaareelu ndam si ndaw Boniface Ndong yooyee ci boobu tournoi ñu desandi ci tournoi boobee wax équipe nationale locale bi nga xam ne ni ay joueurs yu nekk Sénégal donc ñoo ko daal di constitué ñoom dañoo daal di ñàkk seen match seen diggante ak Guinée ginnaaw ba ñu gañewee seen premier match ci tournoi boobule équipe nationale locale Guinée seen ñaareelu match 85 à 78 tournoi bi dina daal di wéy tey ci bëccëg ak match bi na a dox ci diggante équipe nationale locale ak équipe A bu Sénégal ñu jeexalee suñu revue d'actualité de ce jeudi ak mercato Ibrahima Niane Bordeaux moo ko daal di bëgg attaquant sénégalais boobee nga xam ne ni génération foot bu Déni Biram Ndong moo ko daal di formé ba noppi daal di koy yóbbu FC Metz moo teree nelaw Bordeaux club français boobule am na yéene recruter Ibrahima ñaan bu fekkee ne transfert bi muy mbëbët ci Mouhamed Bayo sottiwul jàppale ne attaquant boobu leen nekk foofule ci FC Metz am 22 ans contrat wu mi ngi wéy ba 2024 loolu moo nekkoon seen dernier point seen revue d'actualité di leen jaajëfal ci teewlu bi di leen jox dig daje suba incha allah. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, le Sport.com est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android.